du ma la masa baay moom nga ci toog yow garant yow la nga bëgg yow muy metti kenn tegu la bët yaa ngoon ci bitim réew ñun ñu nekk ci kër gi di muy metti mag paa bi ak maire ñoo fi nekkoon ah bon ah si bàyyi seen bi ma du ma la may eh, bàyyiwu ma bàyyiwu ma bàyyiwu ma la bàyyi man mi maa la war a baalu ah. dañ lay bàyyi dara yoo xamante ne rek war bokk say nawle téye bu mel noo ko def. sant bien ah. grand ça va. non da nga mën a way macha allah. yaa ngi am jàmm booy sax baax na nga yitee. sama tante wax la sama yóbbu. sama yaakaar. loolu kañ la. tey si suba rek man ak moom ñoo taxawandoo ci réew mi waxtaan nañ lu bare bare bare sama tànk daal mu mu may nekk lii bu sama tànk moom non vraiment sama xarit mais gars ñetti fan maa ngi excusez moi barkaati démb maa ngi jégalu mais nag loolu amul solo non sokola nte ne obugo ni waxtaan ayo bismillah ñu mëna waxtaan ok merci beaucoup waaw mais lan laay waxtaan ak yow te duma toog mais lan ngay def naa nag da ngay toog mais su dee nga bëgg waxtaan ak ma nañ taxaw waxtaan ma ñu jëm ci biti kon yow noonu non, ko gisee am problème ok merci kaay daaw umpulewul na sax du mën a maag yow ay doom baay lañ mën naa ne sax ñoo bokk ndey ak baay mais lenn rek laay bañ nga nekk xale ñu jox la dara mu mujjee ci yow réer wala mu yàqu s'il te bëgguma coow am sama diggante ak yow ndax bu dul dara am na fu ma la considéré am na fu ma la teg dama bëgg nga bàyyi ma toog ci siège bi ko waaw gis nga sa dugub jëy jëy jëy sa yaay xam naa sama yaay gisantoog moom mais dafa am loo may jaay a yow su Europe gi ngay woote nan la nga jugee taw faale wu ma loolu ma yow li ngay gëmuñu kaw ma ku gëm boppam nekk ci dëkk ak génn ci gëm sa bopp mais mais doo ñu ne mais yow arrête dire que nga mën a osé jëlee ma fii ba fii man du ma sa morom xam nga te et puis yow Daouda xanaa yow tey la waalo neex tey waalo am ndox ba ngay këtti këtti sama kaw. hey waalo yàgg naa am ndox si waalo yàgg naa am ndox. abo ah bon oui comme comme dem na ba demee noonu xam nga lan laa lay yëgal sama kanam Daouda jógal sama kanam. sées bi doo ci toog. man du ma la bàyyi nga dugg naa la wax ñaar ndax yéen a woo ko amul benn problème. doo ci toog laa wax. Daouda man du ma sa morom. jógal sama kanam. du du ma la baay moom nga ci toog yow garant yow la nga bëgg yow bu muy metti kenn tëggu la yaa ngoon ci bitim réew ñu ñu nekk ci kër gi di muy metti ma paa bi ak maire ñoo fi nekkoon. ah bon ah si. bu toog di noo non man maa fi toog. yow yaay toog damal toog. ok ok boo toogaa ci sées bi nga may jëm ni téléphone. xoolal am xoolal. Assane Assane. loo ci bañu bañu ma ko. am nga loo ci bañ. si am nga loo ci bañ. am naa lu ma ciy jàpp ne lii dara na ma au contraire man mi ñëw di wax ak jaw kon bu la jaralee fukk man jaral na ma ñaar fukk te et puis sax yow yow xanaa xamoon ne sama yaay ci boppam nee na ma sama papa moo ko may ñaari bantu kanam yi ak bantu kaw bi. mais aussi man sama yaay ne ma sama papa moo ko may ñaari tànki kanam ginnaaw yi ak bantu suuf bi. waaw ah, ah, man xam naa la mosoo jub mosoo jub man du ma la xamee koo teg dil nga bëgg man doo ma sa teg dil kon mu ko nangu man gannaaw bi xam naa ko bismillah bàyyi siis bàyyi siis bàyyi siis oui ma du ma la bàyyi siis bàyyiwu ma oui ma bàyyi siis bàyyi siis eh, bàyyi siis bàyyiwu ma bàyyi siis bàyyiwu ma la bàyyi siis bàyyi siis bàyyiwu ma siis ñàkk nga jom yow yaa gën a ñàkk jom yow doo nitu dara yow yaa du nitu lenn baadoola yow yaay bu mag yaw fi la nekkoon muy metti ma faab ñu boo suñu xaas jox nga tukki xanaa a neex ragal moo tax damoo man ak yow benn lan moo ñu wutale puukare nga gëm naa la wax ñaar nag man duma moromu gone et puis yow yaay kan pour qui tu te prends waaye avancel waay yow oui ma leen laa lay wax

man dama amul sax lenn loo xamante ne war man war naa ko mën a jaayanteeg jaw ndax yow doo sama référence man su ma demee bay xam nga ci ñan laay roy ay borom xam-xam toi tu es jàngoo xamoo dara man bu may roy ñoom Léopold Sédar Senghor laay roy ñoom Bill Clinton ñoom George Bush yow kan mooy sa référence yow koyroy man am nga roy man dinaa wax kan laa maam borom Touba mi sànni woon dërba kooku laay roy maam Limaamu Laay mi rëndal géej man ñooñu laay roy oui ma maam Alaaji Maalik mi nga xamante ne lu wax ci yonent bi du deñ man ñooñu laay roy Cheikh Ibrahima Niass man ñooñu ñooy samay royukaay grâce yow am njàng nga may wax nee nga def nga université yëpp man tamit ne jàpp ne def naa université yëpp j'ai fait les grandes daara Touba kaw la Kaolack def naa fépp man faale ma sam jàng gannaaw bi muy metti ci kër gi fii nga kenn gisu la nga nekk réew dugal yi bi bi feebaree fi laa toog ak moom gannaaw fi laa toog ak paa bi mu wopp torop ma yëkkati ko jëmee hôpital gannaaw hôpital bu ma dugg ñu ma yoroo xaalis ma génnaat gannaaw fu ma dugg ñu ma yoroo ndax solidarité amul si dëkk bi gannaaw foo ma dugg ñu génn ma xama fan laa mujjee saa bàyyi bàyyi ko ci kër gi gannaaw bis bi sama bàyyi ci pulaar fii ma ji jox ndox muy naan ndox bi di rogalaan ma xam ne sama bàyyi bi sukuraat gannaaw ma taali ko yasin bi sell mu wuyu ji imaam bi daal di ñëw ne ma kan moo koy taxawoo ma xalaat la yaakaar na ci Gara boobu ànd nga ko bàyyi nga ne boobu fan nga ne yow taxaw sama wàll taxawaale la yow sama gara barki démb Njaay fii bi ñuy wax débat Kamil fii laa toog Bakara nga ak bu froissé boobu li ñu wax ci dara aha tu jàng nga nga ñaan sama baay théorème de Pythagore nga koy naanal wala théorème de Thalès demal nga ñaanal ko fas te grand yow su ma la naree bàyyi sées bi sax dafa yomb ndax yow am nga sées teg fa sa jabar mu nekk di dund lu ko neex mais mën nga bëgg a toroxal mag sama yaay paa bi nag am na lu mu waxoon nee na saa yu ñëwee ma génne ko jox bu dégg ne paa bi li muy woote li mu wax ci kër gii kër gi yaa ko moom ma bàyyi ko yow bu dee man maa moom kër gi ma bokk ko yow. yéen samay doom man mii di seen baay maa ngi leen di xamal na leen li ma fi dese lu néew la lii nag ma leen fi bàyyi muy kër gi waxuma leen bokk séddoo waaye bokk booloo di leen xamal na li képp ambay am bay jënd nga la waaye demal jënd fu la neex kër gi nag sama dund gi yëpp dama koo taxawal ngir yéen ñii di samay dom, ngeen man kee ne te ëllëg seeni doom ñooy doon samay sët te samay sët yooyu damay bëgg ñu naan maa ngi dem sama kër maam lii de bu ngeen man mii di seen bis bu ma bumer bu ma nel ulama man mi maa war a ndax man kira sudul dara man sama mag ñoo bokk benn baay te deret di doo ci man mooy doo ci yow du dama laa bañ wala dara daaw bu toog am kay man ak yow